dinaa wax ñi koy góob jëkk leen dindi jëmb bi takk ko ay say lakk ko waaye ngeen semb dugub ji ci sama sàq Yeesu waxaat beneen léeb ne leen nguuru yàlla aji kawe ji dafa mel ni doomu fuddën bu nit jël ji ko ci toolam doomu fuddën moo gën a tuuti ci jiwu yépp waaye bu saxee mooy sut ci gàncaxi tookër yi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 ak ñiy def bàkkaar sànni leen ci safara foofa des na fa jooy te yeyu booba nag ñu jub ñi dinañu leer ni jant bi ci seen nguuru bàyyi déglul bu baax yow mi am ay nopp yéesu teg ca ne nguuru yàllaa ji kawe ji dafa mel ni alal ju nëbbu cib tool nit ku ko gis na baat ko xolam sedd ba mu dem jaay li mu am lépp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 des na fay daal yonent waaye du ci réewam ak ci këram te yéesu defu fa kéemaan yu bari ndax seen ngëmadi